صلاة الله ثم السلام أفقه المحققين وقاتم الولاية المحمدية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل وأما بنعمة ربك فحدث والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله القائل إن الله شاكر يحب الشاكرين قال taxadusu bi ni'matillahi shukrun wa tarkuha kufrun man laa yashkuru qalila laa yashkuru kathira wa man laa yashkuru naasa laa yashkuru llah wa ala alihi wa ashabihi ahli almahabati wal iman wa man iqtada bi atharihim ila yawmi alqiyama wa radiya allahu an shaykhina wa mumidina قطب الوجود وسعادة الأنام صاحب الفائدة التيجاني أبي الإسحاق مولانا شيخ الإسلام الحاج إبراهيم الناس وأيد الله عن خديمه خديم حضرته بل خديم دين الإسلام وبطله الوحيد سيدي ومولاي الرافع راية التعليم والإرشاد في الداخل والخارج في عبد برهام أطال الله عمره مع صحة البدن بداية حبيبي شيخ الإسلام رضي الله عنه وسأشكر أولا لناصر الحضرة ورئيس جماعة مولانا شيخ عبد برهام شيخي ووالدي الشيخ الحاج تالا تفسير تالا ولاد ويباي الذي من عرفه عرفه بالشجاعة والإخلاص ومن عرفه عرفه بمحبة الشيخ عبد برهام الشيخ عبد برهام حقا هو عقب بايس رضي الله عنه ولهذا ترى تراه يروح ويغدو دائما لخدمة هذه الحضرة الإبراهيمية تنفيذا لأوامر شيخه وحبيبه والدي بعد والدي كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأم أيمن أمي بعد أمي يا عبد برهام ولهذا فلا غرابة نحن أن نحبه ومن أحب شيخنا وسنحبه في أعماقنا وندعو الله له عمرا طويلا مع صحة البدن بداية حبيبه رضي الله عنه ولا أني الكلام إلا وأني سأشكر الشيخ محمد الهادي بنفسه قال العرب الولد شر أبيه وهذا الولد من ذاك الأب فإن الشيخ طارق محمد هادي إبراهيم قد ورث من أبيه العلم وورث منه الفصاحة وورث منه الشجاعة وورث منه الهيبة والجمال لقد قالوا بأبيه قد يقتدى العافي في الكرى ومن يقتدى بأبيه فما ظلم نحبك لأنك تحب النكمان أتذكر يوما جلس هنا الشيخ محمد هادي ويتحدث معنا حتى فاض دموع عيوني كأنني أرى شيخ محمود الهادي جالس بجسمه أنت تحب اللقمان فأحبك اللقمان ومن الواجب ومن الإنصاف أن نحبه نحن جميعا فجزاكم الله خيرا وأطال أعماركم وأعمارنا بجاه جدكم شيخ باجس رضي الله عنه أيها الإخوة أتيت لكم كالعادة بقصيدة تحت عنوان فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون بين أن القصيدة ما صحت نحوا ولا صرفا لا عروضا ولا بلاغا إنها لقصيدة حب من محب حقير وضعيف إلى عالم كبير من أقول إلى عالم العلامة ومنقذ العباد أبي الأيتام وكنز الأرامل والضعفاء من جعل حياته خدمة لدين بل جعل حياته خدمة للإنسان والإنسانية سيدي ووالدي شيعة برهام وقلت وبالله التوفيق لقد طار شوقي نحو الليل المشرف وهل تعشق ليلى لعبد مؤلف لقد طار عقلي ثم طارت خواطري تحلق فوق الجو نحو المشغف وحبك فرض واجب للخلائق لأنك أبهى من جميع المطوف فكم بات قلب يبكي دوما لحبك وكم بات جد في بكاء وأسف وأعني بالعنان عبد الله المكرم لقد عشت مسدا لكل معكف لقد عشت عالما كبيرا ومسدا وها أنت تهدي كل قلب مشرف فتحت معاهيدا فتحت معاهيدا إلهي يزيدها أقمت مدارسا بسير مخشف فتحت مدارسا هنا ثم قائيا ولم سكينيا لهذا التصرف فلا يدري عبد عبد برهام سيدي فسره مكتوم ككنز المكنف لقد عز خادما لرب الخلائق وها أنت هادي لكل مكلف لقد عزت ذا علم شقيا ومخلصا وكنت معلما لبر معصف ثنائي ووصفي كل يوم أزيده فضائلكم يزداد دون التوقف فضائلكم يزداد يا عبد برهما فضائلكم شمس بالنحب بجو مصيف هداك إلهي ثم ولاك هاديا لذا ترشد الناس بشكل مخفف فمن أنكر الله سينكر شيخنا وينكر نورا في قلوب محنف أتيت والقرآن يعيش جهالة فلولاك نبقى في ضلال مكثف فلولاك نبقى في عناء مخلد ولولاك نبقى في ظلام مضاعف لقد أمر الله العباد ثناءه لهذا أدوم في ثناء المعرف وما نال واحد عطاء حبيبنا لقد خصه الله بقلب منظف فلا تطلب الأخي إدراك شيخنا فشيخي وحيد شيخ كل مشرف لقد كان شيخا أكبر الناس همة وأعلمهم علما كفيد موقف ومن حب شيخي في حياة سعيدة ومن لم يحب في شقاء مؤسف وكان إمام سيسي يذكر سعيه كذاك خليفة التيجان المخلف ومن قال غير ذا فذاك مضلل ويرضيه ربنا بعيش مدنف فيا رب فارزقنا إليه محبة كحب زليخا للحبيب المقدس فيا رب فارزقنا إليه محبة كحب زليخا للحبيب المقذف ويا رب فارزقه حياة طويلة ونجيه من كل بلاء مخوف بجاي حبيبي سراج الطريقة وصاحب فائدة التيجان المثقف أقدر شكرا البلد وكبرهان أي وليس بعد العيال بيان ويسويد على كتاب الولاد في تخوان ذكر أرض الفصائل جديد للأرض ومم مكة القرآن إلا وم وكيف آية يعني ركب da nga xam ne fàttewul ko jàng arab nga dégg ko déggin boo xam ne ku ko neex taxaw làkkante naxu bi du yàq bëri na ku taxaw wax arab mënoo dem ñett dugub la lu mooy ne dugal nga ci loo xam ne noir yi dañ xam ne jàll ngay jàll ngay waaye ku dégg arabam yi dañ ne ki ci tegee doomi taalu beem la génn adduna bàyyee ko fa mu taxawoo ko doomam ci koy bàyyi nag ci bopp li ngeen ni gën a ñoo bàyyi doom yëpp dafa leen taxaw ko buñ taxaw ci lislaam lislaam du rus am métti moo tax arab yi mu def taxaw xasida bi ñu def li ci wax tuuti rek am lu mu wax ko suñ màkki wax ko keroog talaata ci ci Saalé ak wax na ci benn ne moom Baye Ndao nee na ku mu wér di man maanaam yàlla nga nekk. ma sëñ Mat bi moo wax ci taaleen ñëpp gis ko mu ne ma ku la bëgg bàyyi des na bëgg ku la bañ bàyyi na lii sëñ Mat bi moo ko wax rek xalaat mi ngi ci bànd yi boo ko wéetee defal nga kon bu fekkee ne Baye Ndao nekk dikk waxaat loolu kon yàlla ameetati wax ci loolu nag sëriñ bi mbooloo mi sëriñ Alaaji Taala bi dañ ko gërëm gërëm goo xam ne eh, mënuñ koy wax ci lu lu xew rek taxawaayam dana rëy dana rafet dana jëriñ mbir dana rëy te du rafet mbir dana rafet te du rëy gis naa rafet lay waaye du jëriñ moom nag ay jéegoom pour que yàlla fekk otoom yàq woon ca gannaaw bi ma xam koo tukki dikk jox lekat yi wax ma ko may leen foofu moom doyam wala ñu jëndal ko oto rek waaye du dina fekk ay waar dala ma toole ci sabati jaay loolu duma ko seetaan bu solaat damay am boolami su fekkee ne li may liggéey ci bàyyi parce que rek laa fi jublu sëñ bi mooy keroog bi maar di lakkee man boobu maa ngi tukki mu formé nit ñi dajale leen jàng yéen njëkk a dajale juróomi tonni ciment la fa laaj ci gànnaaw guddi loolu loolu loolu du ku jóg taxaw da laaj rek yoon la juróomi tonni ciment keroog ci guddi jooju te fu moom la fa dajale. hikmatu boo xam ne suñ laajee xaalis laaj xaalis laaj ciment li ñuy di joxe xaalis am ñoo xam ne joxe mu mu xam ne ñii bëgg nañuy joxe te amul mu ne ku am ngooñ demal indi saako ñu jaay ko rek ah saako ngooñ yi loolu xam nga ne hikmatu mbaale kon kooku nag nga xam ne noonu la mel mu mu jàppul bés bu gàtt pour ndukkumaan yëpp daje fa sàkket fukki classe ñaar yi te lakk balaa takkusaan fekk na yëpp taxawaat allah ba sa jëf ci barke doolu sëñ sa bopp ñëw gis liggéey bi ànd ak ñun ma ne ma lii yëpp ay yomb-yomb lay tudd suñ la nga waxoon yëpp gis nañ ndax bi imam Cheikh Ahmad Cheikh Tidiane bi si mooy ne képp Dakar rek la ma téléphoné wax ma nga teew ba mu di teel a million doomu Ibrahima Cissé ak Ousseynou Thiam wax ci rajo bi te waa rajo ba ñooma téléphone ne ma imaam may na ndigal ne mahar boobu war ko war nañ koy def loo xam ne bu safara di def di farak tegtalaareel leen ko ci na yëpp jégg ko ku mën a dimbale rek ak loo mën a nga dimbale bàyyi si si def ñaari million ba Amérique daayira ya nekk yëpp am na yoo maa ngi jàpp ñu téléphoné ma daayira ba nga xam ne doomi sëñ daam xalifa bàyyi moo ko jiite ci Amérique yónnee nañu seen xaalis boole kon saa du dina ba càq càq ya benn bu nekk yónnee na xaalis loolu waa jaamaal yi bañ ko déggee eh, dañoo dilimaan di sëriñ ba dafa wax ne maata abdouwilan ak maata islam moo la nañ dajale yónnee ko booba lañ dajale somp rëy rëy rëy yónnee ko lépp ñu indil ko nekk sëriñu alayka salaatullahi thumma salaamu fa faraha